asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 19 juin 2020 ñu ak ci yëglekaay yi sunu lamb la ñuy xëy tey doore ko ko mu mel ni ki nag yëglikaay bi tey ka mu xëy dalal mooy Gaston Mbengue le Don King de mu mel ni ki nag moom fa wan nañu ko ci photo fees waxtaan woo xam ne seq na ko ka nga xam ne moo di Abdoulaye Dembélé Gaston nag nee na projet ba mu am daal fi nekk nii autorité réew mi maanaam kilifaay ko la nga xam ne moom la bëgg ñëw suqali làmb ji andi ay combat xam ne combat de feu la ko yëglikaay bi tudde bokk na ca Balla Gaye numéro 2 Boy Niang ki nga xam ne ni moo di Eumeu Sène ak ka nga xam ne moo di Bombardier Gris Bordeaux Sa Thiès Tapha Tine ak ka nga xam ne moo di Gaston daal fi mu nekk nii nee moom pare na bu mu naan pare rek ku ci ne mu lay jox sa avance nga dugal sa poos dem préparé wu ji ndax moom taxaw na tem fu mu nekk nii jatu daal la def ni ab soccet laal mu ko mu naaw bañ koo laal mu naaw moom Gaston Mbengue tamit ñëw na ca mbirum Aziz Ndiaye wax na ca bàyyi ga nga xam ne bàyyi na ko làmb ji Gaston ne daal li am daal ba di def daal mooy moom Aziz Ndiaye moomu ngay wax wala moomu ñuy wax daal la mu def moo jaadu ndax nag comme ay ndigalu kilifaam la nee na ndigal nag jëfe dong la sant kon la mu def jàpp na ne daal du na ci moom

laale def koo def waaye dafa daanu woon muy góor a soog combat bu mujj da koo ñàkk année balance ñëwal ko moo tax yëglikaay bi jàpp na daal fi mu nekk nii ab taxawaayam moom ah xaw naa daal am ay yëngu-yëngu tuuti wala nam mayoon daal xaw naa des yëglikaay bi moo xëy tey ñëw di ñu wax lu mel ni ki noonu bu ma fa jógee damay dem fa nga xam ne nii moo di ca record record nag moom tey kam xëy andil mooy ka nga xam ne moo di guy gi bu école de Mor Fadam guy gi bu Géejawaay guy gi bu Cenaba guy gi nag ak làmbam ji nga xam ne ba mu ca duggee ak léegi toll na ci fukki ak ñaar nekk mbër ci làmb ji mel ni ki nag 22 combat guy gi jot na koo bëre am na ca loo xam ne ni daal wane na ca boppam bu baax baax ci ay combat yoo xam ne bari na yoo xam ne am na ca ay ndam yëglikaay bi ñëw na ci seize victoire la jot a am ci li nga xam ne moo di làmb ji am ci lu toll ci juróom-benn defet moom guy gi waaye nekk na mbër moo xam ne daal ñëw na ak ay tubaabam yoo xam ne wala boog ay waxam yoo xam ne moom dong moo ko xam te di ko wax mel ni ki daal guy gi wane na boppam ci làmb ji bu baax a baax ay revanche itam bëri na ko année balance moom lam ci jot a dégg lu toll ci ñetti année balance la waaye li mu def te mu marqué waa làmb dëgg mooy daan ga nga xam ne daan na ko Ama Baldé daan ko ki nga xam ne moo di nees zos ama neex mel ni kii nag ñooñu nga xam ne daf leen a daan ci lenn ngemb mel ni kon wane na guy gi kon mbër mu mag a mag la ci ne nii moo di làmb ji yëglikaay bi xëy tey ñëw koo xam ne ni moom bu dee mu mag la tamit ay mbiram doxut ndax nag lu toll ci juróom benn at boo xoolee ñaari combat la ci jot a bëre am ca lu toll ci benn victoire ak benn défaite muy maalaw seeraas maanaam kon daal moom maalaw seeraas ba ma ngi dégg-dégg moom jàppal douze combat yi mu jos ci làmb six victoire la ca am ak six défaite mel ni ki daal ay mbiram moom itam gëj naa dox lool lool yëglikaay bi nag jàpp na tey ñëw andi ñu ka nga xam ne moo di Malaw Seras mu nga xam ne moom lañ tuddee koo xam ne daal mooy bras droit ka nga xam ne moo di Ama Baldé wala lépp lu Ama def lu ne moom ma nga xam ne moo di Malaw day taxaw kon daal li solo ba des daal mooy kani loolu mooy àndandoo bu dëgg ay nit moom bu ngeen dee ànd nay dëgg ndax nag lépp looy def ci dëgg bu ëllëgee bu ci dëgg feeñee njariñ lay doon kon koy àndal na nga ànd ak moom ci dëgg te yàlla rekk tax ndax loolu ma am njariñ ci àddina ëllëg yow mal xiyaam ànd yooyu yàlla da koy laaj salaamaaleykum mbokki suuf Leewtoo TV ñu leen nuyu bu baax di leen ziar di leen jaajëfal di leen euh, baalu àq te di leen euh, baal àq si ajuma ji di ñaanal ajuma jàmm salaam bi nga xam ne ni Babacar defal leen li nga xam ne ni mooy revue de presse bi dañuy daal di ñëw ci li nga xam ne ni mooy jàngat bi ak li nga xam ne moom la ñu yéene kaay andil tey Babacar nuyu naa maa ngi lay fay Aïssatou Faye madame Niang mbaa yaa ngi am jàmm. sant bu wér alhamdulilah. yàlla na sant yaa maa ngi lay nuyu di nuy internetu Leewtoo TV yëpp ak ñëpp ñi ñuy si àddina bi yëpp di leen ziar leen ñaanal jàmm si ajuma ji daal di ko saaku si ñoom waaw Babacar dañuy dugg ci waxtaan mi tey ak Gaston Mbengue annoncé woon nañu projet bi nga xam ne ni am na ko tey nag Gaston ñëwoon na boppam fii gis suñu lamb daal di wax ci projet bi ak li nga xam ne ni état bi déy na ko ko comme que comme quoi que validé na bi fas yéene fas yéene ko gunge nag muy ay affiche yu mag di super classe. waaw loolu daal moom xam naa ne wax dëgg yàlla bu amee itam nit ñi bëri wala ñi tudd dund lamb dinañ ne. Euh, alhamdulilah parce que li tax mooy soxla woon nañu ko parce que ñu bëri ñu ngi doon wax làmb ji fan la jëm bëri na ko la ñuy ba ñu bëri promoteur yi leen war a tëgg xam nga affaire yi metti trop mais tey bu fekkente ne moom ñu ngi doon wax di annoncer retour mu ñëw tey gayaat ci suñu làmb waxtaan ak Abdoulaye Dembélé xam le ne moom dèjà état bi validé na projet bi nga xam ne moom làmb super claf boobu defe naa ne ak affiche yi ñu ci tudd yépp defe Euh, manager ak déggoo ba ci kase bu amee dèjà daa mel ni seen avance ñu mën ko jot muy loo xam ne daal lu ama am solo la Gaston Mbengue nag comme ni ñuy wax rek dama bu fekkee retour da am moom day ñëw xëy na ngir gën a a dëgëraat affaire yi parce que tamit làmb ji soxla noonu donte promoteurs yi fi nekk ñu ngi góorgóorlu def li ñu mën mais tamit yaakaar naa ne du doy a mayaat doole comme moom mooy seen doyen yi ñenn ñi di ay jarbaatam am solo lay donte dinañ mayaat làmb mu noyyiwaat bu baax a baax ay sax waa ba tey dañuy des ci lamb ji ak euh, ba tey sunu lamb mu andi ñu Modou Lo ak euh, Ama Baldé di laaj ndax tey nag euh, ñoom ñaar ndax pare nañ pour sóobu ci li nga xam ne ni mooy xeex pour jàppale Luc Nicolaï mu génn waaw loolu moom defe naa ne war nañ koy mën a war na mën a nekk dama naan sa scanné wu ñu ci xëy na daa fekk ne xëy na am na loo ban nga koy def te doo ko defaale doo ko wax kenn di ko yëg ndax am na mbir yoo xam ne des fois lay toll foo xam ne nii boo koy def dafay laaj sutura mais yaakaar naa ne Modou ak Ama tey ñoom ñaar kuy bëgg li nga naan Luc Nicolaï ko gën a bëgg parce que li tax mooy moom mooy ki nga xam ne nii tey moom mooy seen euh, kii nu nan laa ko mën a xati mooy tey ki leen di liggéey loo bokk moo yëkkati xaalis wax ak ñoom déggoog ñoom jox leen ñu war ko bëreel kon defe naa ñoom itam c'est bu a jot leen ko mën a jot kon defe naa bu li génnee dina nekk seen avantage mais dina nekk avantage yu ñëpp kon ñuy ñaan rek Luc Nicolaï yàlla na ko yàlla génne fa mu nekk rek moom bépp doomu bu fa nekk te yeeyoo ko daal suñu lamb ba tey ñu des ba tey ak euh, moom mu ñëw andil ñu ki nga xam ne ni mooy euh, Gora Sock nee nag euh, Gora Sock am na defet daal ci teg li nga xam ne ni mooy saison blanche affaire yi daal lëndëm na ci côté am. waaw mu mel ni góor itam waaw parce boo xoolee combat bu mujj da koo ñàkk mook Tyson 2 te itam boo xoolee ren moom mën nañu def na année blanche su pare kon da yaakaar naa ren loolu moom su amee ah dina nekk loo xam ne nii lu xaw a metti lay doon ci moom mais nag sport lañ nekk ay sport moo tëdd noonu parce que euh, dafa def ay effort ba tax tey mu ñëw ba ci niveau bi mu nekk boo ñëwee nag tey seen bi mu doon bëreel nekkul mbër mu neex a daan yaakaar naa ne kon li muy war a def mooy profité ci saison place boobu ak defet boobu gën ci defaraat boppam ndax defet boo ko jëlee rek war na am lu la lu mu lay renforcer ci ay leçons yoo xam ne war nga ko mën a liggéeyaat ba nga xam ne booy dellu si dikkaat dikkin bu gën a wóor quoi waaw. keneen koo xam ne tam euh, baaw mi ci jafe-jafe muy tonnerre. suñu lamb tam ñëw ci moom ak waxtaan mu xamal leen ni nag fu mu toll ni amoon na pour euh, proposition ci ki nga xam ne ni mooy euh, sëñ Modou Niang ne ko pour mu bëree ki nga xam ne mooy Baye Mandione mais gis moo lay wan ne lépp corona baa fa jaar ñëw yàqu ndax Tonnerre ak Baye Mandione nekk combat bu neex a neex ndax Tonnerre ku ne xam ne dafa newoon ci ay série de yu métte métte métte ba niñ koy mujjee yóbbu Linguère suma jub mu bëree fi ak Tidiane Faye daan ko Baye Mandione tamit ren gis nga événement bi ëpp coow ci lamb ren moo ko bëree donte lamb ja yëggul coow la fu àddina fu ne coow nañ ko direct TFM ba mel ni tuleeg màlle xam nga mu nekkoon mu nekk mbër moo xam tamit dafa bokk ci làmb kon daa na daal corona bi la woon mais bu doon corona bi xam nga sëñ Modou itam nekk na bokk na ci promoteur yi nga xam ne dëgëraayu làmb am na ci part bu rëy rëy ndax bari na ci def quoi te sëñ te boolewu ko wax ju bari tamit waaw parce comme li ma koy faral dégg muy wax baat bu am solo nee na bu sedd Euh, bopp bu tuuti te sedd moo ko gënal bu rëy tey metti moo la ko wax nga dëgg bopp moom bu rëy ba mel ni sama bopp te dëkke metti dootu la noppal waaw noonu la demee dañuy daal dem fële ci record ak Abou Ndour Abou Ndour tey andil ñu li nga xam ne ni ki nga xam ne ni mooy euh, guy gi ñëwaat ci ay jaar-jaaram ak li nga xam ne ni marqué na carrière bi waa muy nag mbër moo xam ne nii defe naa ne 12 ans de carrière la dafa gu fukki ak ñaar mais bi mu ñëwee tey moom guy gi ci gëstu Abou nduur daf ñuy nuyu Abou Ndour wane na ne moom li mu bëgg da koy da koy wut si te dina ko am te wax dëgg yàlla mën nañ ne am na ko parce que fexe na ba indi benn style boo xam ne si làmb ñu bari xamuñu woon ko si mbër yaa ngi dégg guy gi arbitre day soufflé guy gi génn jat muy loo xam ne dafa xam dafa nekkoon lu jaaxal sénégalais yi bi ci des ak takkaay yi ni muy takkee yaram wi ak ay termam yaa ngi dégg wax joo xam ne nii moom nekkul dama naan guy gi du complexe xam nga du complexe parce que li mu bëgg a jàllale message ko jàllale yow nag yaa xam koy dégg mais l'essentiel que dina moom bu ko waree wax en anglais dina xool la mu ko jubam waxee ko na bu dee français la même chose moom day wax li mu bëgg wax pare ci mu nekk mbër moo xam ne vraiment itam lamb dakaa soxla mu saf xorom trop et puis def na parcours boo xam ne nii si 12 ans tey ak niveau bi mu toll defe naa itam boo gëmulee li ngay def joxoo ko cër doo fa mën a yegg si te yaakaar naa loolu moo ko may tey mu yegg si fii ba nga xam ne nii tey mu def carrière bi mu def tey macha allah te lu bare bëree bari nag dese ko ci carrière mais nekk na mbër moo xam ne daal mu saf xorom ndax defe naa ne mooy mbër mu fi njëkk di bëre si dawalal sa bopp sa 4-4 droit te wàcc port ba waaj te war a bëri. ñu oto contre Ama Baldé la woon mu jël oto ba dawal. waaw mu jël oto ba dawal waaye. Demba Diop <laughs> waaw non non bi muy dawal oto bi muy dawal boppam oto bi di ñëw boobu su ma juumulee Zos la bëreel bi ko Zos di daan. waaw boobu la dawal 4-4 bi œuvre ba ko Waré Sarr joxoon ne na xam nga. guy non non de contre Ama Baldé drapeau Bécaye Mbaye tegoon nañ oto mu jël caabi oto ya dawal. si biir jël caabi oto def na fa loolu muy mbër moo xam ne itam maanaam du maanaam nekk na mbër mu naqaree déstabiliser parce que li tax mooy du dund maanaam euh, mental bi baax na quoi parce que yooyu yëpp mental bu baax moo la koy may quoi. am na solo aw defaat euh, jàngat ci ki nga xam ne ni mooy tey jii Pikine amoon na ci moom yaakaar plus précisément Falaye Baldé bi nga xam ne fa la nekk mais gis nañ après carrière Malaw nu mu mujjee waaw mu nekk carrière ne comme wax dëgg yàlla yaa ma gën a xam day wàcc mais Malaw vraiment doon nañ ko xaar fu sore sore sori si làmb mais gis nañ ne ci juróom yu mujj yi comme ni ko yëglikaay bi ñëwee tey wax ñu ko ñaari combat la ci def benn victoire benn mu nekk mbër moo xam ne nii ah xaaroon nañ ko fu sori ci làmb mais nag làmb tëdd noonu nit ki parce que dinga ñëw sécri man fa lool dàq faa bari sax te yàlla du la may tey nga yegg fa nga xam ne mooy niveau bu kawe ba. wax rek ku nekk ah, la noonu la demee nag moo tax ba nga xam ne daal moom itam daa mel ni loolu accepté na ko parce que li ci garaaw mooy nga bañ ko nangu mais da nga koy accepté xam ne yàlla moo séddale ci cër benn su ko defee nga mën a uti beneen raccourci boo jaaree pour mën a defar sa àddina te defe naa ci la nekk tey yaa ngi dégg gis nañ ko tamit ci digganteem ak Ama. na mu kon parce que nangu ga mooy nga gis benn xale fël ci cri boobu mu war a ne la nga xara ci sa tànku tubay jàpp ci ba mu yegg fi mu war a yegg kon defe naa loolu mu def moom Malaw Seras moo lay wan ne kon nangu na ne a yegg xëy na ci lam fañ ko doon xaar yeggu fa ki mu gis ne war na a yegg mu ne xaaral mu dem muy ci Ama xam ne mooy Malaw Seras ab nu tam di ñu xamal ne que CNG tam def ay consultation parce que yéen consulté ñi nga xam ne ni ñooy acteur de la lutte parce que tey war nañ déterminer. saison bi jeexatal bi nu muy demee ak yan décision lañ ci war a jël na lañ koy sauver ñu koy arrangé daal moo tax CNG war a waxtaan ak képp koo xam ne rek bokk nga ci làmb waaw loolu dina am solo parce que tamit comme li ñuy wax rek boobu ba tey waa làmb ñu ngi ne tekk waxuñu promoteurs yi euh, ci seen kuréel xëy na bu amee kuy wax da nga naan moom mooy wax en tant que moom personnellement wax waxu boppam wala mais nag ñoom ci kuréel yi moo xam promoteur yi la moo xam manager yi la moo xam mbër yi la la xam nga mooy loolu quoi defe naa nag ku ci ne pàcc bu ci ne war a daje ak ko fi yemale wala day continuer wala bu moom lañ daggoon parce que ñu ci bare bare jotuñu ko jariñoo comme nañ koy waxee loolu lépp nag waxtaan waxtaan ko mën a moom ci lee mooy defar lépp lu coow li bëri lu xuloo bi bëri bëri ak lu guerre bi bëri bëri il faut ñu toog si benn taabal rek wërngal toog ñun ñëpp ñu waxtaan ku ne génne leen ci yow ñu mën a tënk la ca baax jariñoo ko quoi waaw. ak dañuy jeexal ak li nga xam ne mooy procès Bébé Diène tey la woon fële ca tribunal bu Dakar mais tey procès bi tamit dañ ko dàqaat ba vendredi bii di ñëw le 26 incha allah. waaw ñu koy ñaanal yàlla rek yàlla na ko yàlla génn ci loolu moom bébé jën parce que xale la bi nga xam comme lu may wax rek yaakaar la si làmb yaakaar la ci gox bi mu dëkk muy Medina mais nag àddina moo ki ndog ndoga am ñoo ànd way waykat ba ne na àddina ak weeru koor a yam fekk dog jotul rek jubu weesagul kon bu kenn naagu ndax booy naagu di daagu te ku daagu taxaw te ku waaw te ku taxaw ñu romb la noonu la demee moo tax daal li am solo daal yal nañu yàlla muccal rek te itam ku yàlla dugal ci am ndog-ndog yal na la ci yàlla génne ndax lépp moom moo ko mën loolu rek mooy li nga xam ne moom lañ koy ñaanal parce que xale la boo xam ne nii suñu rakk la te xam nañ ko bu baax a baax muy xale bu gëm boppam tamit ci li nga xam ne moom lay def si mbiru làmb Papa Abkara ci lañu la ñuy tàggoo ñi nga xam ne ni ñooy suivre seen revue wér gu yaram fu ñu munti nekk di ñaanal yàlla musal ñu ci li nga xam ne ni mooy euh, jàngoro corona bi di bëggee ñëpp di gërëm ñëpp Babacar yàlla na yàlla nangu ñaani Aïssa yàlla musal ñu ci corona bi rek xam nga ñi ci jot a génn àddina yàlla na leen yàlla jégal tax leen aljana ñi ci tëdd tamit yàlla na yàlla yëkkati leen ñu mu dalagul yàlla mu yegsi ci ñoom mu jeex ci àddina bi ak bépp feebar sax wala lépp lu jaaxal doomu mais nag euh, àddina moo tëdd noonu daal yàlla moo fi nekk nekkal ñu fi ñun ñëpp moo ñu fi bàyyi ci ay ndig ci ay ci ay ndogalam waaye daal li am solo daal mooy yal nañuy ànd rek comme ni ma koy wax rek jàppante te yàlla tax rek xam nga yéenante jàmm ñaan àddina bi jëm kanam rawatina suñu réew mi nga xam ne amuñu lu dul moom muy Sénégal di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre ñoom Serigne Diour maa ngi nuyu ñoom Ndongo Fall xam nga ak Habib Ndoye ñoom Tuuti Yaay Sarr Khadiros Ndiaye sama jigéen ak képp ku nga xam ne daal yaa ngi suivre Leewtoo TV à travers le monde maa ngi lay ziar di la balu àq di la ñaanal jàmm. ba lundi allah.